deena deena deena deena lii lii. 3 kilos deret tuur na. Papis Fall dem na. Papis Fall dem na. asalaamaaleykum la famille bëggee naa leen j'espère que yéen a ngi si jaam bu baax a baax man Fallou maa ngi si jaam bu baax yàlla ni yàlla defal sutura xéwal ak xaalis bu bëree bëri bëri sama gars yi balaa vidéo bi commencé merci d'aimer la vidéo abonnez-vous bu leen fàtte yéen Zé Won Sports sama promo code 21F la saa ba di nga bonus yi man Fallou gis naa koo xamante ni jam nañ ko fii mu daanu deret bu bëri tuuru te deewul <laughs> waaw am na kër brisé laa ko gisee <laughs> Papis Fall yaa gënoon xam ni Alice dina la jàpp jàpp bii ni xaar naa ko ay at tey laa ko yàlla dogal nañ seetaan Papis Fall la Alice jàpp jam ko fii Papis Fall daanu deret bu bëri tuuru ñu jeeg saa yi gisatuñ Papis Fall Wah ñu ngi laajte ani Papis Fall. xamal ngeen nan la jàpp. xam nga ni rek ñi lan la muy fàttali. à chaque fois ngeen nan la jàpp si ndox bi dañuy tourné dal xel nag li nga def Dena, Dena, li, li, li. ñu jëm la li, ci park fi dee li li re de man bima sé seetaanee épisode bi pour man Dena. naka de Papis Fall deewul seetaan leen Papis Fall de dee na normalement Papis Fall daa war a dee paaka put paaka fii si put kenn ko la jappalé dee kenn mënul xam li ne sa xol. xoolal deret bi deret deret bu bi yëpp deret bi yéen a ngi gis deret bi. ki dee bay sa tëtëtële nii nii. masa li ma def yëpp. Alice. ray na ko. wut dëpp. kii ka la. dee na. deret bi deret bi gis ngeen deret bi ni mu tudd kilo deret bi génn na ci. Aziz bi nga ma dof. tey ma ko ak li ma def yëpp fële que ma rey ko Arouna tey ma ko. waaw dama dama dama nit ñi nga def dara ba pare xoolal man Fatou moo ma jox numéro bi quoi te xam ne jaru ko. calme toi Alice calme toi calme toi. déglu ma calme toi non non non demuñu benn police calme toi laisse moi gérer s'il te plaît. kay laisse moi gérer kay. amoon zéro daal kay kay kay kay kay laisse moi gérer d'abord nga sant.

gis ngeen Pape Ismaël Alif jam na ko li mu bon bon bon bon diggante bii nii lu mu bon bon bon trois kilos deret war na tuuru lu mu bon bon bon bon bon mais seetaan leen bi kii ñëwee kat yi bi mu ñëwee kat yi ñëw na di ko laaj lan la pour mu xool Pape Ismaël deret gis ngeen trois kilos deret tuur na Pape Ismaël dem na <laughs> Pape Ismaël dem na <laughs> muy dafa naan. Faye dem. nit. yow lii deret la deretu Papis Fall Papis Fall moo tuddoon fii léegi moom la Alice jëm léegi léegi. Eh, calme eh, calme toi ah, deret la mais nekku fii. Oh, nan lañ mën a jamee nit. fii ci put mu mu daanu. ah fii fii la tudd léegi léegi fii fii la tudd léegi léegi. 3 kilos tey lii xool deretam lu bon bon bon 3 3 3 kilos deret dañuy waxante dëgg 3 kilos deret watt na ñu ñëw gisuñ Papis Fall Papis Fall xanaa daa naaw. ak Papis Fall lan moo ko fi jële ak Papis Fall fan aw jàppale leen ma naka te yow Papis fii Papis lu ko indi fii Papis Fall mii Papis Fall mii bu dul malaaka dina ma jaaxal de daan waat na fii te fii lu bon bon bon yeneen ñaari kilo deret war nañ tuuruwaat fii nii diggante bi lu mu bon bon bon bon rek balaa kii di woo docteur beeg ñu koy dimbaleek yooyu noonu ak Papis Fall dem ak diggante bi Papis Fall demee nan la mën a yeggee fii dara ci Papis Fall moo nekk nii lan la moom Eh, eh. sama gars yi bu ñu waxantee dëgg Papis Fall gën a sonn ci kër gi ci ci ci ci série bi cœur brisé Papis Fall magam bi noq na ko fi ak kan ak faru ku yambar ki ak Alice Ndeye ñëwaat na jamaat ko waa ko des nañ xool seytaane néew moo jàppale Pakistan Aïcha xoolal ngir yàlla loo jàppoon nag bàyyi ko ngir yàlla nga ñëw Aïcha Aïcha ngir yàlla ñëwal Aïcha sama benn xarit moo ñëw xaw ma lan moo ko dal Aïcha dafa ñëwaat deretam fii takkal na sama kër gi yëpp Aïcha ngir yàlla ñëw jaaxle naa cinq kilos deret waat na cinq Papis Fall yeewul Papis Fall Papis Fall yeewul <laughs> kii dee di dee na de man de yaakaaroon naa ne dee na moom man dëgg fa neex yàlla seetaan leen di nga xam ne Papis Fall deewul. fu nga jógee mënoon nga fa woon deewee Papis Fall maam jàmb ni ngeen di def kii dugal nit yi ñu yóbbu leen mandat dépôt maa ngi leen ci rien yeewul ngir yeewul yeewul. ma ma man Pawlish Fall génne woon naa ko sama xel ci série bi naka tey yoo Pawlish Fall teewul faj nañ ko ba mu leer xool leen Pawlish Fall Pawlish Fall lañ mi moo moo moo dëgër bopp man am naa fi de imbécile may mu dugg si ma kër gii waaye moom moo ma yeb sax moom mi bàyyi ñëpp ñëw ne dong sama kër heure bii bu la fekkoon Pawlish Fall dee li nga xam lépp dëgg la ba nga takk si compte bi. ah. mais ku si ku si la. tëtul. ay ma bi bu nekkul si man am na ay mbokk rek boobu. médecin bi ñëw na démb ba faj la. dem na heureusement nee na sa benn artère laaluñu ko. insisté na nag ba soom sax pour ñu yóbbu la hôpital. ok ba ba bis faal. noonu la mën demee nee na artère li artère maanaam organe mi laalu ko. boo ko cent franc yi mburu yi buñ la jë buñ la jëwee fii du laal ci nañ yeggale man noppi naa. lu la def nii du waaj diir sax kan moo la def nii. dama doon xeex. <laughs> wax nga dëgg Fall ndeysaan yow daal da nga doon xeex mais daal yow sa sa blessure yëpp benn côté daal la nekkee daal. ba bis démb nelaw ma ndax yow xam nga lu ma bëgg. nga wax ma lu mel ni midi gis nga sinon egg naa bureau mooy woo ma Samba Fall yaa ngi may dégg. Mm-hmm. waxal ah, Alice la Alice Benga. Alice Benga bu aaroon na Benga bu Papis Fall lan nga def xale bu jigéen boobu ba mu naroon la fees nii. xaaral ma expliqué leen pour boo leen fàttee Papis Fall lan la defoon alis Papis daal moo jàpp alis dama leen koy fàttali rek fekk fàtt ngeen ko moo jàpp Alice gëmloo ko ni da ko da koy taq ah séeri kër Brice bi ñu waaye commencé ñëw nax ko jël alalam jël ndawam dem moom kii Alice kii Alice lekk rek la ko waroon def ki Alice lekk rek la waaye man lan laa jaaxal série bi euh, Papis Fall bu dee rëboo la nañ ñu ko wax ñu teel a xam yeggale suñu seetaan parce que Papis nokk nañ ko fi dugal nañ ko ci piscine jëlaat nañ paaka jamaat nañ ko <laughs> ci put fii paaxam cent franc dugal cinq kilos deret tuuru Papis Fall deewul man xamatuma dara ci Papis Fall